Alamane, la ilaha illallah. رشيد لا إله إلا الله صبور لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله la la. تسريف سفر bay xam ngeen ni am na ci taxawaay bu rëy mook sëñ Ahmadou Tasrif du ñu ñaar kenn lanu bis bii sëñ day jël tànk boppam ànd ak sëñ Ahmadou alaaji ñebbe nak taalibe la ci kër kër Seex Diéry Wadane moom it mi ngi nuy dugg si waaye sëriñ Jiili moom sëriñ Seex moom sëriñ Mahamadan Jobbe moom sëriñ Masamba moom it yegg si na mu ngi ne toog moom it moog sëñ Abdoulaat rakkam di doomi sëriñ Seex moom sëriñ Mahamadan moom Seex Masamba yegg si na xam ngeen ni xam ngeen ni ñoom kenn lañu ci sëñ Ahmadou Tasrif ñëw nañu bu yàgg mu ngi ñu ngi nee toog waaye ñu feggoog nag signalé loo moom Serigne Bassirou loo ale aram signalé doon ya dit yàlla baaxal mu doon jëmm joo xam ni moomit it ñëw na moom signalé moom it mu ngi nii toog ñu ngi koy nuyu te di ko jox wàccuwaayam waaye di wax nii itam bis bii site internet yi ñu ngi koy def direct site internet yi ñu ngi koy def direct Tawfekh production mu ngi def bis bi direct bis boo doon def si CICES ba xajatul CICES nga indi ko di son ngir Cheikh Jéeri ni mu mel ci sëñ Ahmadou Tasrif waaye waaye faw saal bi fees Cheikh Jéeri xajul ci saal borom waddal xajul ci saal de Cheikh Jéeri ci stade la xaal la xaj ci stade waaye xajul ci saal tuddee Serigne Touba bu dee jigéen mu jox soxna Jaara borom ku ma laal baax ku laal ki ma laal baax ndax dama laal Bamba mag ak ndaw góor ak jigéen di jiital suñu nuyoo ci xilifa yi fi teew yépp tàmbalee ko ci sëñ sëriñ Ahmadou Sougou moom mi ñu fi dajale tey jii ci journée culturelle waa diwaan làmp sëriñ jéeri waa daan Sougou daja ak cent ans wam nekkoon jàmbaar ci yoonu lislaam ci keppaaru Cheikhul Khadim liggéeyal fa suñu borom nekkoon walliw kaamil jàmbaare woon ci yoonu murit ba làkk ngërëmal borom bi ba sëriñ bu mag bii di sëriñ Touba seexal ko ginnaaw bi mu làkkoo ki fi njëkk a toogal sëriñ Jéeri Waadaan ci atum mu ngi nekkoon sëriñ Bamba Sugu nekkoon jàmbaar ci yoonu lislaam ba ni mu làkkoo ci atum ki ko wuutu di sëriñ Tuubaa Sugu moom it nekkoon jàmbaar loolu ba ni mu làkkoo sëriñ Sugu sëriñ Ahmadu Sugu moo ko wuutu bi mu làkkoo sëriñ Daam Joor Sugu moo ko wuutu ba keroog muy ba ni mu làkkoo yal nañu yàlla taas ci seeni barke sëtam bi njëkk a toog ci di sëriñ Maxtaar Sugu ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci bàkkem maamam di sëriñ Jéeri Waadaan Sugu ñi ngi sant di nuyu di gërëm sëriñ Ahmadu Sugu ñu ngi lay jox sa wàcc ñëw nag ci jëmm ji di sëriñ Ahmadu Sugu di doom ci soxna Ami Jaxate ak sëriñ Jaxumpa ak sëriñ Mamma Sugu ibnu sëriñ ahmadu tafsir sugu ibnu sëriñ jéeri waadaan sugu sëriñ mayib sugu lañ ko tuddee sëriñ mayib sugu nag mooy rakki sëriñ jéeri waadaan sugu euh, sëñ seydil xaaji malik féetu woon ak moom jëloon ko yóbbu ko tiwaawan def ko def ko muy imam euh, muy njabootu euh, seydil xaaji malik yëpp fonk ko jox ko cër ak njabootam def na délégation bu mag ñëw ci njiital sëriñ Abdou Aziz bi nga moo jur ngi nii nga xamante ne sëriñ May Youssouf moo jur maamam ñuy ñu koy yóbbante ab nuyoo ci xalifa général de Tidiane muy sëriñ Mbaye si Mansour ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla kafi loolu tam ànd ko wér di nuyu tamit njabootu sëñ May yëpp ñëpp ñëw nañ di nuyu bu baax soxna Oumou Diaw mi nga xamante ne ah moo mag ci sëti sëñ May yu jigéen ñi jàpp ci bis bi lool ba ñaari weer yi nii mu ciy wax du ci dox kon ñu ngi leen di nuyu yéen njaboot ak Seydil Xaaji Malick yi nga xam ne yéen a fi teew fekk ngeen fi nag seen mbokk soxna Karo si mi ngi ni toog di moom it bokk ci waa Tiwaawan di sëtu Seydil Xaaji malik muy seen mbokk di seen lépp kon mi ngi noonu njabootu Seydil Xaaji Malick ñëpp ñëw na njabootu sëñ Tuubaa gi ñëpp ñëw na soxna Ummi Mbàkke ngi nii moom sëñ Tan ma daan soxna say Mbàkke ngi nii moom sëñ Aboo Madiyaan soxna maam jaar koso ngi nii moom seexul xaddi moom sëñ koso asuloo di sama xarit soxna kinne ana soxna kinne ñëw na ak soxna kinne waaw ñoom ñëpp ñoo bu ma libéré ba ñu nekk ci njaboot sëñ Tuubaa kenn xamul toog soxna Kumba sama soxna maa ngi koy sant ànd naag njaboota mbokk bi yëpp waa Battal yëpp ñëw na maa ngi leen di leen gërëm ah soxna Fatou la yooyu ñëpp maa ngi leen di gis. jërëjëf sëñ déléga délégation Serigne Moustapha Sy Moustarchidine wala Moustarchidaat Serigne Maodo Malick Serigne Malick mbay jiitu ko. Serigne Moustapha Sy ñëpp xam nañ sama digganteek moom ay atagi nii yoo xamante ne bu ma nekkee waadaan ba mu guddi ñëpp xam nañ ne teewaawoon lay fanaan ni ci sëñ Moustapha Sy sëñ Moustapha yi nag fa ma teg danaa leen ko seedal ndax fonk ma moo tax mu yebal Maodo Serigne Malick mbay mi mu ñëw fi ndax Malick sëñ Malick mii moom la yónni ci màggalu Touba gi li muy rëy rëy màggalu Touba gi moom la moo koy demal fépp foo xamante ne bis bu mu fonk la boo gisee siñ Malick rek xamal ne kami sëñ Moustapha gam yabal rek fonk na kon sëñ Malick maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ci sa taxawaay ak délégation bi nga àndal kontaan naa ci yow lool waaw nee ma sëriñ sëriñ Sidi Mbacke gis naa ko kon maa ngi sax ñu ñëpp toog ñu naa ne wax dama bëgg wax waaye cat bi lay njëkk rek cat di sant bu baax a baax mbokk yi fi teew yëpp ak ñi nga xamante ne jàpp nañ ci bis bi sonn ci am ci yéene ba ma ko commencé ba léegi mën naa laa wax ne bu ma tuddee tur rek danaa juum ndax ñëpp am ci man yéene ñëpp am ci man yëg-yëg kon yéen ñëpp xam ngeen xam naa kenn ku ci ne la ma séq yow xam nga ko ma ni la ma séq yow xam na kon sama xol set na bu baax maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp waaye sama cant nag maa ngi koy dalee ci sama wajur sëriñ Mamadou Sow mi nga xamante ne mooy sama sëriñ mooy sama yaakaar mooy sama wéruwaay mooy sama lépp bis bi ba ma ko jàppee moom ci moom laa njëkk a dem mu ñaanal ma ci digal ma ci lam ma ci war a digal lam ma ci lépp nag moom ci yoon woowu képp laa jàpp loolu ma jaar nag yoon rafetal boobu moo tax tey jii mbooloo mi ñëpp gis mi te mbooloo mi li muy bari bari mbooloo mi ci bis dëdduguñu moo kon loolu lépp dañuy xam ne rek conseil sëñ Mame Massouga la ñaanu sëñ Mame Massouga maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm waaye nag di jiital sama eh, ci cant gi yëpp nag ki nga xamante ne mooy Cheikh Amadou Mountakha di ko ñaanal yàlla yàggal ko ndax mooy sunu sëriñ ñun waa njabootu Cheikh Jéeri Waaraan amuñu sunu sëñ rek la xam xamuñu keneen sëriñ Jéeri Waaraan tamit sëñ Touba kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko te mu ànd ko wér muy Cheikh Amadou Mountakha ba ñu jàppee bis bi. ba léegi maanaam ak njabootam samay kóllëre la muy ay ña ña gën a jege ñu leen di tuddee ay bëkk néeg damay jokkoo ak ñoom sëriñ bi yëg na bis bi ñaanal na ma ci euh, digal na ma ci dem naa ci moom ba mu ñaanal ba ma ngi ñaanal tamit ki nga xamante ne moo jiite suñu kër muy kër seen jiir sëriñ Maxtaar kenn bésu sëriñ Dame Sougou mi bi nga xam moo jiite sëriñ Maxtaar moom sëriñ Maxtaar Sow ak euh, ànd ak rakkam sëriñ Ahmadou Anba waaye ànd ak suñu wëjur nag sëriñ daam sugu bi nga xamante ne ah, mooy doomi sëriñ daam jor nag ngi nii ñoo jiite délégation sëñ ji eh, eh, bàyyi ko ko sëñ jéer ak sëñ bàmb sugu moom suñu waaraat eh, bi nga xamante ne nag mooy xañoon moom sëriñ ahmadu sugu ak yéen ak ñëpp ak taalibe sëñ bàmb yëpp sëñ bàmb mooy yàlla woo na ma sànq di ma ñaanal lu ne mu wax ma ko ci lu baax maa ngi koy maa ngi koy ñaanal baax mu def di ah di sant bu baax tamit ki nga xamante ne tey ah bari na lu mu def ci man maa ngi koy ñaanal di sàkku ci mbooloo mi ñëpp ñaanalal muy sama jigéen muy soxna Ami nii di ku baax di koo xamante ne lu baax rek la muy def xamul dara lu ñaaw lu baax rek lu baax rek maamam jooju di maam xaali baabu joxum ko nga xamante ne ku amul cër ci sëñ Tuubaa amul cër ci sëñ Tuubaa moo tax sëñ Tuubaa am ñaari bayit bu ko na ko yaa xaari baabu kun fii diine baabu xëy wala takun fii diine baabu sant kon ñu ngi leen ñu ngi leen sant njabootu xaari baabu gis naa seen seen seen teewaay ñu leen di sant sama xarit yi ñëw yëpp yëpp gis naa leen macha allah waaw maa ngi leen sant bu baax a baax di beral cant tamit nag sëriñ Modou Koura Sylla Diwane mii nga xamante ne sama bàyyi la sama xarit la ah bu ma ci duggee sax day day xóot sama diggante ak moom waaye maa ngi sant bu baax sëriñ xarit Kamal may leen ko mu ko bisimilah kon damaa andi nag conférencier boo xamante ne li mat a xam ci sëriñ jiir yëpp bëgg naa mu leeral ko yéen ñëpp ngeen déglu tey nag yéen ñëpp ci jataay maa ngi leen di ñaan tey jii tey jii damaa bëgg ñëpp xam ne tey lu ma jox kenn mën a ñaan kuy ñaan waaye tey li ma bëgg mooy ngeen may ma ñaan gi yéen sëriñ gi ngeen jéggal ma ndax man tey njot xam naa ne tey jii lu ma ñaan suñu borom dana ma ko nangu tey te maa ngi ñaan ci barkeb sëriñ Jéeri wala sëriñ Jéeri lu ma mbooloo mi ngeen may ma tey ñaan gi kilifa yi ngeen may ma ko may jéggalu ngeen may ma ko jërëjëf sëriñ Ahmadou kon ñëpp teewu léegi nag dama am ñu seetaan ñu projeté benn documentaire bu gàtt suñu paree nag sëñ mu moor ngiraan la ñuy jox mu comme mu tàmbali conférence Modou sëriñ Saliou Sam grand conférencier ñu ngi koy nuyu di ko ci wàccu waayam ak kilifa yi fi teew yëpp soxna maam jaaraa ngi ñu toog sëriñ Koso ko jur Modou Awa Balla ko jur Modou Awa Balla ak Cheikh Awa Balla ak Fati Awa Balla Awa Balla Kumba jur maam Dieng warax booj bu jigéen Diop xërloo tak sall buri jër get ba sëriñ sii dée ngi nii toog sëriñ Modou Mokhtar ma naan kon euh, la régie nañu loola waral ñu defaree maquette bu am solo bii nga xam ne dañoo fas yéene taxawal daara moderne fële nga xam ne mooy waa Wadaan muy liggéey bu am solo boo xam ni toll na ci ay millions yu baree bari ngir fas yéene gàttanu nag seen maam ju tedd jooju nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi waxal ni liggéey baa ngi noonu bu mu laal suuf looloo tax sëriñ Ahmad Tasrif Sougou ak mboolem waa diwaanu sëriñ Jéeri Wadaan fas yéene àndandoo samp daara moderne ju am solo jooju nga xam ni xaalis bu bare bare lañ ci war a financer ngir fas yéene yar ay ndaw ak defar leen ba nga xam ne bu ëllëgee danañ doon ndaw ñoo xam ne dañuy mën a jariñ seen bopp waaye mën a jariñ seenum réew mbokk yi maquette bu am solo boobu nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool noonu lañ fas yéenee tërale daara moderne ji muy daara joo xam ni dees na ci waajal gone gi li ko tàmbalee ci buy wax basmala ba keroog muy am li nga xam ne mooy lijaasaam waaye xale beet su fa génnee dafay daal di mën a dem nag jokki ca liggéey ba li nga xam ne mooy liggéey Cheikh Mamadou Mountakha bi te mooy daara jële mooy université wa ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube bokk ci programme bi national international